waaleykum wa rahmatullah waaw mbooloo ñoo ngi ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di ñëwoon ñëw di ñëw di wax tuute ci ngëneelu xaal xaal ndax dafa nekk li nga xam ne lu am solo la bëri njëriñ lool bëri ferñeent te ñu ngi jëm ci période bi nga xam ne nag ci la koy nit ñi di gën a soxla mooy période tàngaay xaal ci boppam la ci nekk ci ferñeent macha allah lu bari la boo ci demee sax da ci fekk liñ naan calories protéines glucides lipides fibre waaye lu am vitamine C la nag waaw am vitamine C am liñ naan bêta carotène biñ naan lycopène muy lu bëri njëriñ ci eh, aar nit ki ci feebaru cancer bêta-carotène yooyu ak lycopène yooyu lu baax ci feebaru cancer la waaye lu mën a aar nit ki ci ay jàngoroy xol nga déggee ci ne ñi am ñi am ñi am problème xol xaal moom di ko jëfandikoo lu baax la ci ñoom ñu ko amit ñi ko amit ko amul it euh, lu leen amal njëriñ la ndax tàmm lekk xaal daal dana aar sa xol ci lu bari noonu la baaxee te ci ay yax yax waaw waaye noonu la baaxee ci cholestérol bu bon bu yéeg xaal mun na koo wàccee xaal diurétique la diurétique boo ko déggee mooy xeetu garab yi rek nga xam ne dina yombal nit ki tuur ndoxam aar ko ci tension waaye baax na ci ay neer waaw ñi am feebaru neer ak ñi am feebaru maanaam dinay leeral bët ngëneel yooyu yëpp mën nañ ko fekk ci ci xaal waaye xaal baax na ci liñ naan frigidité ki yenn soxna yi nga xam ne duñu am yëg-yëg yëg-yëgu sëy waaye baax na ci ñi amee tension waaye it baax na ci nga xam ne tamit dañoo am problème prostate prostate bu ko defee ñu jàpp ne yi nga xam ne yëpp maa ngi lim nag benn bu nekk rek bu dee dal nit ki jëfandikoo xaal am na ci jeexantal di ko jëfandikoo am na ci jeexantal dina jàppal nit ki lool ci anam yooyu yëpp waaye bu dee benn dalu ko ci mun na ko ci aar waaw ba ci doomam yooyu nekk ci biir nga xam ne jarul a di ko yéey baax na waaye danañ ko danañ ko ko def ci ndox mbaxal ko ba mu baax segg ko di naan ndox mi ci anam boobu nag moom ku koy def moom mun nga cee gis ay ngëneel yu bari lu mel nii reesal say lekk faj ay saan rey ay saan moom tamit baax na ci tension bu yéeg baax na ci jabet boobu jabet jabet jabet rek nga xam ne ak suukar bu yéeg mu baax ci góor ci kattanu góor doomu xaal yi nag moom boo ko bëgg bu dee moom nga bëgg a jëfandikoo danga nga ciy fexe wut lu bari bu ko defee nga wut ci ñeent nga tibb ci ñeenti kuddu doomu xaal ñeenti kudd yu mag ba mu fees nga fexe ko baxal nag ci ñaari litre ndox lu mu bon bon fukki minute juróom ñaari litre ndox yooyu daal nga fexe di kon daan def ko sa ndox naa di kon naan ci ñaari fan su jeexee nga defaat ko faral di ko di ko tollanti incha allah dina la dimbale ci anam yooyu yëpp waaye dara nag gën ëpp solo nag jiwu xaal bi ji bi ji bi moom gëneel kese la waaw ginnaaw neex bi mu neex rek euh, ngëneel yaa ngi ci biir lu mel ni coono boo sonnee moom di jëfandikoo jiwu xaal dana la ci jàppale bu baax a baax li mel ni tension bi ñu doon wax noonu lekkum xaal wala rek di jëfandiku jus xaal jus bi dara gënu ko ci waaye lu mel nii reesal lekk moom it dara gënu ko ci ba ci feebar yi nga xam ne dafay jàpp rein yi rein ku amee daal di jëfandikoo xaal mën na la ci dimbale bu baax a baax bu mën na la ci aarit ba yow foo toll daal dina nettoyer say rein ba macha allah benn gàllankoor du ci du ci dugg waaye jus buccal nag baax na ci liñ naan problème érectile mooy nga xam ne seen awra du yëkkateeku nu mu war a yëkkateeku ñooñu sax di leen digal jus buccal lu ci am solo la ñu koy naan surtout guddi gi gannaaw ba ñu reere lum néew néew nga naan ci ab kaas waaye noonu la baaxee tamit ci prostate prostate bi dana ko aar. ci jàngoro prostate euh, waaye xam nga nag noonu ñu koy defaree noonu di ko seral moom tamit dara gën ko jiw bu sedd waaw danañ koy digal sax ñi nga xam ne dañoo toll ci ménopause jigéen yu jigéen yu toll ci ménopause mooy jigéen ñi nga xam arrêté nañ jurum doom te gisatuñ mbaax ñee ñii de dañoo ménopausé ménopause nag dafay ànd ak yenn saay tàngaay yaram buy bu métti sax buy génn seen yaram yi ak yeneen yeneen màndarga nag loolu nag moom gisuñu lu ci gën jiwu xaal boobu toll ci diggante boobu di ko jël mën na la ci dimbale bu baax a baax a baax a nag yenn njëriñ lañu nekk ci xaal ak jus ak doom yi moom tamit mu doon lu ñu jege xëy nañ mënu ñu réeree ko mbir waaye lu ñu jegalante lu am solo la waaw yenn saa yi nag di ko wax da ci am solo ndax li ñuy faj li ci ci li ñuy lekk rek la nekk li ñuy lekk rek lekk lekk bu baax lekk bu baax nga xam ne jege na la seerul seeraay bi nga xam ne seer na ko te boo ko tàmmee di jëfandikoo mën na la aar ci loolu lépp kon boog ñi ko xamoon macha allah ñi ko xamul woon tamit ñu dolli leen ci loolu ne leen lii daal njëriñ yi xam nañ ko ñun ci xaal waaw doon lu am solo daal macha allah.